السيد عبد الرحمن لو عميد الكلية العلوم الدينية والإنسانية والحضارات السيد دكتور جيل جين مدير دراسات بالكلية زملاء الطلاب والطالبات أيها الحضور الكريم نرحب بكم باسم اتحاد الطلاب في رحاب جامعة الشيخ أحمد بامبا دار العليم الخبير ونقول لكم أهلا بكم عدد ما هلت الأمتار أهلا بكم عدد ما طارت الأطيار أهلا بكم كلما مر تذكار أهلا بكم بعدد ما في الأرض من الأشجار أهلا بكم عدد ما في ما في الدنيا من أسرار مرحبا بكم مرحبا بكم بعدد النجوم الساطعة وبعدد الورود الفائحة التي تفوح بأذكى العطور wa adadi ma taktubu al aqlaam min al xurufi wal ibaaraat bi munaasabati hadihi al xaflati al iftitaaxiya li bad'i diraasaati tamhidiya naqulu lakum laqad tajaawaztum marxalatan min al maraaxil diraasiya ila ahami al maraaxil fi fi masiratikum ad-diraasiya wa hiya al marxalatu al jaamiiya allati tuqaddimu fiha at-taaliimu al aaliim fa talabu lilmi lahu manafica kabira tacuudu ala alfardi walmujtamac fa huwa asaasu taqadumi alxadarat walduwal wa azdihaariha wa huwa tariqun liruqiyi alfardi bifikrihi wa thaqafatihi fa salaaxu alfardi min salaaxi almujtamac wa cumuudu hada alsalaax huwa talabu alilmi walmacrifati walsacyi lidalik ila axiri yowmin fi lcumr ixwati tullaab wa taalibaat talabul ilmi yaxtaaju ila iradatin xawiyatin li anna lahu athaaran ijabiya la taxtasiru ala alfardi fa xasb bal tatacaddaahu li tasila ila alusrati walbiati almuxiitati walumma falilmu yuhazibu alnafs wa yuqawimuha wa yartaqi bilfardi ila ala almaratibi fi aldunya walaxira wa fi lilmi tucammaru alard wa tartaqi alumma wa tartaqi alumma wa tusayidu alxadarat abra ma yuqaddimu alafraad li awtaanihim ولهذا علينا أن ننتهج شتى السبل والأساليب في طلب العلم والتي تبدأ من التحاقنا في هذه الجامعة التي تخرجت فيها دفعة من العمالقة والخبراء في مجالات مختلفة وعلينا أن نكون من الذين يرفعون راية هذه الجامعة في جميع بقاع العالم ونتمنى لكم موسعا مفحما بالعلم والمعرفة rais ittihaadu talaba Mouhamed Gueye. My name is Mohamed Gueye. I'm a student at Seydou Ahmadou Bamba University, Faculty of Religious Science and Humanity and Civilization in second year. I welcome you on behalf of the Friendship of University Seydou Ahmadou Bamba, the Touba, and tell you welcome and welcome to you, your home. The ambition and action are the key to success for which no fire can stand. Thank you so much. Thank you so much. mbokk ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax gannaaw ba ñu jiitalee nuyu gi ci sëriñ Mamour Mbacke mi nga xamante ni si comme ni ñu koy waxee képp kuy jàng arab ci Sénégal amee nga ko njukkal moom mi nga xam ni moo taxoon wax ni la budda min takwil jil jadid kar karrasa wa afna xayaatahu fi taalim wa taalim yàlla nañu ko yàlla fayal moom sëriñ Mamour Mbacke waaye di nuyu képp koo xamante ni sii mi ngi koy jàppale ci liggéey bi euh, commencé ko ci amit ba ci docteur Abdou Khadir Diène mi nga xamante ni si moom moo jiite wàllu jàng bi. di wax rek ci turu étudiants yi nga xamante ni si ñoo nekk fii ci université Cheikh Amadou Bamba di wax ak yéen yéen samay mbokk étudiants comme ni nga xamante ni si noonu la ko suñu oustaz Cheikh Sarr defe naa mi ngi ci jotaay bi toog bés ba ñu njëkkee teg moom dafa ñëw taxaw suñu kanam dëgg-dëgg nag. màgg ngeen laqad kabirtum xaqan kon loolu lañ leen di yeggewaat di leen wax ni leen jóge nañ ci étape ñëw ci étape war a yokkaat suñu jéego te xam ni kat sàkku xam-xam amul yow amul fu mu yem dañuy dem ba jeex rek kon dem ba jeex googu ci sàkku xam-xam lañu ko gën a yittewoo kon loolu lañ leen di ñaaxaat yéen di leen fàttali tamit ci biir université bii di Cheikh Amadou bàmba lépp loo xamante ni si ab jàngkat dana ko soxla ngir raw ci domaine bi nga xamante ni si ci lay jàng te mu nekk fii ci université yi mi ngi ci biir moo xam ci ay prof yu qualifié ñoo xamante ni si ñu laa biir lañ ci seen xam-xam ñu am pédagogie ñoo xamante ni si ñu tayal ci jox la li nga xamante ni si moom lañ xam sëriñ Mamour fàggu na ko fii ci université bi dama ciy dalal seen xel bu baax ndax kenn laa ci ñi nga xamante ni si ñoo fi jàng am nañ ci biir université bi maktab boo xamante ni képp koo xam ni xam-xam yitteel na ko wala gëstu boo fa demee fii ci biir université bi mën na faa dem yokk fa xam-xamam kon lenn rek moom mooy des mooy al azmu te yaakaar naa ni fees na ci yéen kon li des mooy ñu euh, waajal bu baax a baax li nga xamante ni si moom ngeen dëgmal moom mooy seen année bi nga xamante ni si moo nekk seen kanam di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu na leen ba li ngeen di ci xam yàlla may leen ci lu seenu njottu jërë ngeen jëf Mouhamed Gueye